وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ندله على آله وصحبه وخير خدمه وسلم تسليما لمن moom lañ ci war a balluloo docteur Khary Papa Diagne oustaz Soxna Gueye ak it euh, Moustapha Guirassy bokk na ci ñu waroon a loolu nag mi ngi amee ci ron kilifteefu kilifay Touba Ca Kanam ni ma ko waxee léegi Serigne Habib bi jëwriñ bi ak Serigne Abdoulaye mi ko fi teewal. ak ku mel ne Serigne Abdoulaye Mbacke moom Serigne Dame Atta Serigne Moutala Mbacke moom Serigne Fall bu ma ubbee ci lim bi euh, dana bari yoo xam ne dinaa leen du ma leen mën a lim kon ma ngi sant bu baax a baax di santaat Serigne Touba bu baax ci yi nga xam ne defal nañu ko tawféef di ñu suñu borom defal ci Serigne bi ba ñu tàkkatoo àndandoo di liggéey liggéey boo xam ne bu ñu yaakaar gërëmal yàlla la te mooy liggéey bi wàcce kanam ñoo ngi sant Serigne Touba bu baax a baax. di ci sant kilifa yi ñu àndal ñu ñuy teg ci liggéey bi waaye di ci sant mbokki taalibe yi ñu àndal yëpp bu fekkee nag dañuy def ak présentation tënk bu gàtt ci Touba kanam lan mooy Touba ca kanam loolu day mel ne laaj la xam ne ñëpp xam nañ du Touba ca kanam lenn lu dul mbooloo moo xam ne rek dañoo toftal sosu jokk ca mbooloo yi fi jiitu woon te sëriñ bi xàllal leen boppam ñu samp bi liggéey sëriñ te yàlla rek tax loolu mooy Touba ca kanam Touba a kanam mooy mbooloo moo xam ne dañoo jóg takkatoo boole seen i doole seen i xel seen i xalaat ak seen i alal fas yéene ko liggéeyal Touba ca kanam buñ ne ñan ngeen Touba ca kanam nag mooy fa ak bëgg lu baax yaa way Touba ca kanam Touba ca kanam kon mbooloo lañ moo xam ne sàkk ngërëmal suñu borom rek li tax a jóg kanam liggéeyal Sëriñ Touba rek ko tax a loolu mooy Touba ca kanam Touba ca kanam nag dafay euh, kuréel yoo xam ne dafa am lu mu génnee ci sëriñ bi may yi ko suñu borom may ci wet bu ne ba ci wetu économie wàllu développement jëme am réew kanam Touba ca kanam di ci misaal mu am am solo moo xam ne xëy na waxtaan bi ko daan ci a am lu leer bi mu juddoo nag doon ak nekk ci réew mu mel ne Sénégal nga xam ne réew la moo xam ne dafa am ay loi ak i règlement yu fi dox kon boo fi sampee kuréel bu toll nii Touba ca kanam faaw nga jëm koo yoonal loolu moo tax Touba ca kanam ci statut juridique mu doon am association am statut association. boo amee association kon dina am euh, bureau exécutif dina am comité directeur comité de direction boobu assemblée générale bu Touba ca kanam ñoo koy fal te mooy mbooloo comité directeur bi 50 ñoom lañ ko posé bu ñu leen falee ba noppi ñoom ñooy fal bureau exécutif président secrétaire trésorier ak seen i agent waaye ñooy falaat nag commission yi nga xam ne ñoo ngi leen liggéey bu Touba ca kanam toll ci fukki commission ak ñeent ñoom dañu wëlbati nekk ci ron kilifa yi sëñ Abdou Lahad ak sëriñ Habib mu nekk ci statut juridique bi fexe na ba sàmmanteeg doxalin réew mi waaye wàccu benn yoon. njàngaleem sëriñ bi wàcc benn yoon li nga xam ne mooy doxin murit ci pas-pas ak takk te liggéey sëriñ bi te yàlla bi loolu amee nag bu kuréel gi dañoo daal di jàng wante nag jàmmarloo ak lu mag ay jafe-jafe yu yuy toll ci juróom-ñeent wala juróom-ñett ak na waaye ci yooyu laaj mën a xayma ginnaaw bi ma doonee kuréel bu pas-pas jafe-jafe njëkk a jànkonteel mooy ak nos ñu koy wax défi organisationnel ndax mbooloo yi ñu leen di mën a jëme ci kanam mooy ñu nos organisé wu bañ xam kan mooy kan ak kan mooy def lan nosu googu mooy li ma doon wax léegi ci wàllu tërëli bi nga xam ne moom la ñu bàyyi kanam tëddee waaye ñu amaat beneen jafe-jafe bu ñu jàkkaarloo te mooy kuréel goo xam ne dafa jóg am pas-pasu ne dafa bëgg dajale ñaari millions yi nit weer bu dee kenn ku nekk ci ñoom joxe ñaari téeméer bu ko defee at mi di ci ma dajale dajale ñaar fukki milliards ak ñeent loolu ku nekk xam na ne laaj na communication bu rëy a rëy laaj na fu nit mën a nekk loolu mu yëg ko leer ko waaye du ci yem du dañuy fexe ko jamono bu nekk ñu koy fàttali ngir ñaar téeméer yooyu nga xam ne jaayante ne ko fas yéene ko ànd ak Touba ca kanam liggéey ne ko sëriñ bi ci Touba mu sax ci ci cadre communication boobu bokk na ci li tax bi daje fi ses ngir jàpp nañ ne fii mu fi jógee tey ba def waxtaan bi ba nopp ay sëriñ yu bëree bay dinañu samp ci Ndakaaru yoo xam ne ña koy jiite dañuy ànd ak yi mbooloo di soññanteeg ñoom tey gën a jàpp ci liggéey bu Touba ca kanam bi ba àddi yee ci joxe jamono nekk ñu doon mën a dajale di ñëw ñetteelu défi bi nga xam ne moom la Touba ca kanam jànkuwanteeloon mooy collecte de fonds fexe ba dajale alal yi te loolu dafay lëkkaloo ak gestion bu transparente création de confiance. Touba ca kanam bi mu doon tudd bokkoon na ci jafe-jafe yi gënoon a nekk jafe-jafe ba tey jii mooy fexe ba li ñuy soxla par weer te mooy ñaari milliards nekk 24 milliards te boo ko waxee ñi nga xam ne ay économiste lañ ku mel ne ñoom seen docteur bi docteur Fatou Bamba Diagne man ma ñoo jàpp ne xal wi ñu xal day xal wi yaa sas wi ñu mobilisé sas wi réeréer lépp te bay. waaye ñoom ñoo jaaxal ndax ñoom ay taalibe dañu xam ne du ñi ñuy xool ci Touba ca kanam ñooñu ñoo ñoo ñoo ñooy tax loolu mën a am déedéet day mbirum Serigne Touba te Serigne bi moom fu mu àgg ak lu mu am yitte ak pas-pas yitte ju kawe ak pas-pas ak dogu moo ko fa àggale kon ñaari milliards yi nga xam ne jàpp nañ ne mën nañ koo am par weer lu mën a nekk la waaye ngir mu nekk nag faaw kenn ku nekk ci ñun da koy gëm ba noppi di ko gëmloo ku mu am loolu mooy tax ñu mën caa àgg te loolu mooy dugg ci. communication ak massification ñu amaat beneen défi boo défi boo xam ne jàkkaarloo naa ko ñun li Touba Ca Kanam doog tudd ba tey jii mooy li ñuy wax gestion bu transparente mooy leeral laaj man di ko def suñu xam Touba Ca Kanam ñu ngi doog jub li njëkk li ëppoon ci débat yi am débat ak di ko waxtaane mooy nañu fexe ba Touba Ca Kanam doon kuréel bu wóor nañu fexe ba Touba Ca Kanam xel man cee dal loolu nag sant nañ ci yàlla bu baax a donte ñoo ngi gën a di ci soññante ndax lu leer bu doy waaye euh, bokkoon na ci bokk na ci xeex bu gën a mag boo xam ne Touba Ca Kanam moo koy xeex mooy fexe ba alal ji ñu di ko def fu leer nañ ñi di ko toppatoo di ko saytu ba loolu moo tax Euh, am na ay kayit yu ñuy séddale def naa waa organisation war nañ leen koo jox ñu def ci lenn ci réalisation Touba Ca Kanam def nañ ci biir benn na boo xam ne Touba Ca Kanam dama juddoog léegi ba ci weeru li mu jot a dajale ci xaalis man ca ci dépensé man ca des ci compte Touba Ca Kanam yi ba ci weeru avril bii mi ngi ci kayit boobu te mi ngi ni ma tiim Touba Ca Kanam bi mu tàmbalee léegi taxaw gi mu taxaw. ñu yëkkati ko rek fas yéene cee liggéey sëriñ bi taxaw gi mu taxaw ci leeral ak saytu ak sexe ba nit ñi am ci moom ak wóolu loolu tax na ci diggante ñeenti at yi ak euh, juróom wala juróom benn weer yi ci topp ñu dajale ci juróomi milliards ak ñeenti téeméer ak ak juróomi téeméeri millions yu mag tuuti 5 milliards 492 millions 124 mille 352 loolu mooy li nga xam ne. Touba Ca Kanam dajale na ko depuis 2017 ba avril 2021 loolu li ñu ci dépensé nga xam ne génnee nañ ko ci liggéey ci sëriñ bi ci dëkk bi toll na ci 4 milliards 577 millions 566 mille 654 loolu mooy réalisation yi ngeen gis yëpp Touba Ca Kanam euh, def ko ci ci biir réalisation yooyu mën na cee lim dana ci lim tuuti donte waxtu bi danañu fa. waaye loolu ci ñoom moo ko leen ne kon avril bi 2021 li def ci compte Touba Ca Kanam mi ngi ci 914 millions 557 mille 697 ginnaaw bi ñu ci defee réalisation yu tolloo 4 milliards 500 te loolu mi ngi ci ñeenti at yi ba weeru avril bi ñu nekkee loolu nag bu mënee am dafa fekk ne day kéem taanu ñaari téeméer yu ànd ak pas-pas ñaari téeméer ñëpp xam nañ ne. fi jamono toll xawees naa man wax ne solo bareeti waaye ak am solo bu fekkente ne ki koy joxe saxal na ko te bi mu koy joxe mu di ko joxe rek ni yàlla fas yéene ci liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bu boobaa ñaari téeméer yu am solo lay doon loolu moo tax ñaari téeméer yooyu mën jur liggéey bu am am solo boo xam ne fo waaye mën a toll ci àdduna bi léegi yaa ngi koy bàyyi xel di ko waxtaane biir Sénégal loolu sax xëy mooy xaw a tuuti ci li nga xam ne waroon nañ ko waxtaanee jëm ci Touba Ca Kanam naka la mën a nekkee modèle wala naka la mën a participer ci bu Sénégal. bismillahi rahmaani rahim koy dugal ci beneen point bi ndox mi ñu tudd léegi rek xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu dafa wax ne asqaytanaa xayra miyaahin yartawi shaaribuhaa wa xayra fawzin yahtawi yow yàlla yaa ñu nàndal ndox moo xam ne dafa nekk ngën ji ndox ki koy naan day màndi ba pare te day làq ak texe Tuubaa ci kanam loolu projet la dama naan kii réalisation la commencé boobu ndax dafa fekk ñu amagul ndox muñ jot a jàpp mu lijjanti ñu am ndox di ko yaatal di ko yokk di leen dimbali doo ko jublu ci nag di ko sell waaye bu fekkee ne beneen wet boo xam ne wax na ci ndox dama koy mën a boolewaale sécurité bi nga xam ne Touba Ca Kanam a ngi dox ngir mu am ci askan wi sëriñ bi ne wa maskani sallim wamnun ala al ahli bi ma jaari sama dëkk bi musal ko ci lépp luy kàccoor te kàccoor xam nañ ne mooy ñii def naka sudul noonu loolu mënta am lu dul sécurité dafa am lu mënta ñàkk lu dul sécurité dafa am sécurité nag bokk na ci lu ëpp solo ci lu koy may ginnaaw yàlla nit ñi jàll te nañ ci ñëw ndax Tuubaa ci kanam def na ko mooy fexe ba leer yaatu éclairage ci mbedd yi ci ruq yi ci bërëb yi nga xam ne kenn nekkagu fay loolu day waral dëkk bi am sécurité te Touba Ca Kanam lim ci liggéey ngeen xam nu mu toll waaye bu dee li ñuy wax assainissement nga xam ne Touba ñëpp xam ñëpp xam ne ni meloon ndox ay mbalit jaww ju takk ji jaww ji ci boppam ngelaw yi nga xam ne baaxul ci nit ñi ñàkk garab yu mel ni ñu war a mel. yooyu Touba Ca Kanam taxaw ci def ko jëmbati garab di setal dëkk bi waaye place yi taanox mu di ko defar soo boolee yooyu yëpp daf ñuy may yow ñu set wecc yoo xam ne bu ci nit ñi dee nooyi seen wér gi yaram a yokk jëmbatum garab mi nga xam ne commencé woon na ko maa ngi yaakaar lool ne dana ko continuer Touba population bi dañoo bari lool ba noppi ci biir bari noonu ci dëkk bi place yi ne jaloowaat bariwaat muy lu mel ne marché yi lu mel ne jumaa yi lu mel ne xew-xew yi màggal yi yi place yi woote mbooloo dafa bari te bërëb yooyu su amul garab yu bari chlorophylle di fa wàcc ñuy am oxygène bu doy feebar day yomb a bari ci dindi doomu aadama moo tax njëmbatul garab mi nga xam ne ñu ko doon commencé ci réalisation yi ma ëppal solo la bokk ndax day yokk wér-gu-yaramu askan ñu doog a ñëw nag ci wér-gu-yaram ci boppam moom lim ci def dégg post poste de yi ci tudd am na ci yoo xam ne fi mu ne nii am fataa ngi wax ne daanaka centre la waaye am na ci yoo xam ne ñoo gën centre yi ñuy gis poste yoo xam ne ñoo gën centre xam nañ ne centre niñ ko rancé woon ci réew mi mooy carte de santé ca village post de santé ci koñ bi centre de santé ci xaw la digg dëkk ba ak hôpital da nga xam ne mooy boole ñëpp waaye ramal boobu boo xoolee poste de santé yi Touba Ca Kanam defar da ngay gis ne dafa mel ni daf koo anticipé moom sote dem ci kanam centre yi ñu fa daan tudde centre am na ci yoo xam ne poste yaa leen dëkk loolu tam day am solo muy liggéey bu am qualité ndax itam liggéey baax na lool. waaye bu ñàkkee qualité dootu am njariñ loolu yëpp nag ma njëkk a tudd am na solo na xam waaye bi ko ëpp solo mooy lim def ci wàllu éducation jàngale ak yar te njëkkee ko ci li gën ci xam-xam muy alxuraan Cheikh Khadim radiyallahu anhu nee na kitaabu xayril wara aslul ulumi maa huwa kitaabu alladi man raddahu xurima nee na téeréem yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa mooy cosaani xam-xam yépp bépp xam-xam bépp xam-xam bu nit mën a jëriñoo ci àddinaam cosaanul xam-xam la buñ ko mënoon waxee matière première ba mi ci alquranul karim xanaa nit ki egg ci man koo gis wala mu bañ koo gis waaye mu nga mu ne nag téeréb alquran bi mooy ressource xam-xam yépp te mooy téere bi nga xam ne ku ko delloo ginnaaw rek yàlla xaj na lépp lu yiw ñoom ñu ñëw njëkkee ji fekkoon daaray sonn lool suñ daaray sonn lool doomay sonn mu ñoo daal di def ci liggéey boo xam ne yéeme na te liggéey yooyu yi ci nit ñi gën a jàpp gën ko cee gis man dama ne am na ci beneen bu mu ko gënal lu ñu bàyyi mooy formation bi muy defal sëriñ daara ndax itam bu dee dangaa bëgg alxuraan bëgg daara soo toogee rek bi waxee daara daara yi wala sëñ daara yi nga xultu ba sonn bàyyiwaat dara du change sëñ daara yi formé leen bañ xam lu ñuy muamalaat rek donga yi ak jëmmi daara ji ci boppam loolu dafa am sol Touba Ca Kanam def ci liggéey bu yéeme boo xam ne ñi ca jaar ku nekk ci ci ñoom yéemaat damay jël benn anecdote suñu benn jàngalekat boo xam ne yàlla dafa dogaloon ñu bokk école di fa jàngalee mu jàng ca daara ja ba mokkal alxuraan tëral téere yi majaalis ci te di jàng bi ba mokkal ba xam daal dëgg yàlla borom xam-xam dëgg lañ ko mën a tudde waaye bi mu ñëwee di commencé jàngale ci école yi am na problème ci joxe leçon dama def lu mu mën nag sonn ci lool waaye mënu koo joxe biñ ko waxee ne ko na bokk benn concours ñu defal ko formation bi biñ ko ko njëkkee wax dafa mel nit ñi fay formé damay seen morom inspecteurs yi maa ngi raw wax lu bëri waaye bi ñuy wax tëkkoo ba tëkkoo ba dem ñaari weer la fa am ñu feet mu ñëw ne man damaa meloon ne ku am suñuy dénk ba mu bari teg amul marché amikoon waa xawma lu ñuy defaree taabal ci at ñoom ñu jàngal man moo koy defare ba ma mën a defar table mën a defar sées jariñu formation loolu lay jariñ euh, pédagogue yi dañuy wax ne da ngay am madda ilmiya door a am madda taalimiya matière xam-xam doom waaye boo paree doo war a amaat matière jàngale soo defalee nit formation réer yi nga ko defal ngi ñaan mu daj kapp yal na yem jàmm waaye am na solo lool te danañ gis bu baax jeexital yu muy am ci daara yi li tudd muy boolu daara bi ñuy gisal mu ci projet yi defe naa ne loolu buñ ko waxee ñoom Touba Ca nit ñi danañ ci war a sawar ndax fi mu ne nii kat lu yomb organisé koñ bu nekk daara ba fa nekk ñu bari ca koñ ba seeni doom fa la te jële fii doom yóbbu ko dëkk dëkk mu jàng keneen jël ci dëkk boobu indi la ci daara ji sawet gën a wóoloo gën a yaakaar la rek waaye alxuraan moom jenn su organisation bi amee formation yi am na donc bu ne mën a jàng ci daara ji ko jege te noppee ñoom ñëpp a yem alxuraan bi rafet la ñuy yëpp nag yenn la yu ma tudd ci yéen Touba ca kanam di def. salaamaaleykum. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah di yiital ci nuyu bi sunu yaakaar tey ak ëllëg ki nga xam ne moo ko fi nekkal Cheikh Mouhamadou Mountakha moom lañ ciy jiital di ko seewaat di ko wàññiwaat. di ko teg ci loxol kilifa yu tedd yi bi di nekkal ko waaye kàddu yi bi kàddu yi yu jógee ci sunu jëriñ sunu kilifa sëriñ Habib bi xam ne mooy jëriñ bi Touba Ca Kanam di ko ñëpp xam ak lay sëñ Gàkku dem amoon yéene teew fi bi lool bàyyi woon xel lool waaye yàlla miy dogal lu ko soob di ko dogale nag ko soob di ko dogale ci waxtu ko soobee

donte nag du luñ mën a leeral waaye xam naa ne am na ngant lu mat ngant moo ko tey kon loolu mbooloo bépp xam ne si yow yi amoon na yéene ñëw bëggoon naa ñëw waaye yoon a tëyal jàmm kon loolu la moo ko tey teew allah ci jàpp yi noonu moom bii biñ jokkoo daf ma ne fii may waxee yow doom day gaaw naa jël li di ko naan waaye bu ma xëyee su ma mënee ñëw waaye bi mu xëyee moom it ngàntu xëy na loola tax yaram xaw a diis ba mu yabal laaj toll ak ak taawam liggéey bi waaye li ñuy wax lépp nag surtout ñoom lañ koy wax ak tuum mooy Touba Ca Kanam wax ji nag du génn ñaar yëpp benn bi mooy sant ak soññ kàddu yi ngeen ko bëggee bu ñu demee dana gàtt lool incha allah sant gi nag dañ lay jiital yàlla suñu doon bi nu bind ci coono lu ko sooboon mu def ñu ko te duñ ko mën a dindi waaye li ñu defal ci ay taw fii ak i ndimbal mënuñu koo lim mënuñu ko sant sant benn taw benn bi ci loolu ndax lu ko sooboon mën nañ koo doon waaye mu def ñu ay doomu aadama def ñu ay julli waaye bi ñu defee lii ba mën nañoo ñëw yëpp sëñ Tuubaa ba jàll sëñ bi doog ñëw waaye dana am taw fii nit ba sëñ bi ñëw du doog ñëw mu ñëw mu boole mu boole ñu doog sëñ loolu ay ndaw fekk la jox donte nopp nañ sant ko ci li war ci moom ci ak cat sant sëñ Tuubaa bu baax moom mi nga xam ne wax ne dafa tànn ak njabootam tànn naa la leen bi yonente solo doon tànnee dafa tànn tànn naa la daana wax ne sant leen yàlla ndax boo wéree duufu kenn ku fi ñëw dañ la cee boole waaye dañuy diw doo ci bopp kon moo nañu boole kon ñu ngi sant sëñ Tuubaa mi tànn woote lu tànn naa la bi waaye sant gi ñu koy teg ci lu war ko fi nettal Cheikh Mouhamadou Mountakha te man ko sëkk jëwee te koo xam ne ku ne xam na ak taxawaayam ak itteem ak yéeneem ak jàppam ci Touba Ca Kanam donc ba ma liggéey bi tàmbali boobu mu jëriñ Cheikh Sidi Moukhtar kàddu yëpp ñu yëkkati woon te jotaay bi njëkk ba ba fii de loolu la ñuy wax mooy yaakaar bi ñu am ak yéene bi ñu am ay dem na ba wax sax am naa ci yaqin yaqin ji nag dafa mel ne li am tey kon Cheikh Mamadou Mountakha di koy sant bu baax te di ko ñaanal suñu doom yàggal ko suñu kanam te may ko wér ci barke Sëñ Tuubaa di fab jàng boobu boobu di ko teg ci loxol di ko dal teewal ko jataay bi sëriñ bi nga xam ne moom mooy kàddu sëñ bi mooy lépp sëñ bi kon moom bu teewee day mel ni jëmm sëñ mu taxaa teewal ndax mooy kàddu mooy ay tànkam mooy ay loxo mooy lépp waaye ñu ngi bu baax di seeral Cheikh Mamadou Xabaar moom Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi ndax ci yoon bi maa ko doxe mooy kilifa jotaay bi ñu koy nuyu te di ko siyaar ci yu mënta nuyoo ko siyaar sëñ ne boobu mu Cheikh Modou Badji ko fi yebal suñ xabaar bi da ko waxoon ne kàtt bi ñu ngi noonu na ko wax suñ xabaar nee na waxal suñ bés ne ko que suñ tool la que suñ tuxaale benn la waaye pour loolu moo fi nekkal suñ mun taxaar kon moo yor kàtt man xam naa sama lépp lu ko dugg léegi moo fi sëñ ndax moo fi ma waxaat ko noonu sëñ Bass kon sëñ Abbaan mooy kilifa jotaay bi waaye sëñ Bass la delluwaat sëñ bi ñu jëmmi sëñ Moustapha mi ngi taxaw kon sëñ Abbaan ñu ngi lay nuyu te di la yox sa wàccuwaay yaa ngi boole dund bi nga xam ne moom ngeen ànd ak ngeen di ñëw di wax sëñ Bassirou donc ñu ngi koy seeyaale baax te ko sant ci ak taxawaay ak jàppam ak yëgam ak yéene ñu ko wàcc kanam

kon sëñ Bassirou amee nañ la gerte Touba Ca Kanam amee nañ gerte ni nga la koy gerte di la xamal ne gis nañ taxawaay bi nga taxaw Touba Ca Kanam gis nañ itte di nga jox Touba Ca Kanam gis nañ jàpp gi nga jàpp Touba Ca Kanam defaloo loolu nag sëñ Touba nga koy defal sama am yàlla na la ko nangu ci barke sëñ Touba kon ko seet na ci yow buy yàlla na la suñu borom may fan bu gudd ak bu wér àggale la sa yéene ci yoon ndax sa itte jëpp ak sa yéene jëpp mooy lu jëm kanam yoon kon képp kuy def lu jëm ci yoon rek yaa ngi gis naa ko li tax mu yóbbu nag ak siyaare bi ko teg ci loxol nag mi nga xam ne ñoo waral bis bi say ak cant muy soxna yi tàmbalee ko ci suñu jëw bi mu sëy Habib bi ñi nga xam ne yi ñi ngi fam loxo ak soxna jaxam mu sëy la soxna maam xawil sëy moo ko baax ak mbooleem soxna yu yi fi teew yëpp buñ duggee ci am lim lañ matal soxna bàyyi di mu soxna moo doon taxaw ma ñu koy nuyu loolu délégation bi ñu yebal leen di sant di leen jottali la ak nuyoo soxna si ak jàpp di ko wax ne ko nag soxna si xam ne fii ñu ba waa Touba ca kanam gis nañ ni ñu gis na bis li ñu doon def waa pour daw yaa naan ay yéen ñu ñëw fekk si ko te loolu lépp itteel la nag bàyyi ko xel kon soxna bàyyi dañ koy sant baax waaye sant nag moo leen soxna Touba ca kanam ndax saa lii bu ko xam ne Touba ca kanam soxna Touba ca kanam bàyyi nañ xel Touba ca kanam soxna Touba ca kanam am na itte Touba ca soxna yi Touba Ca am nañ ak njàmbaar Touba Ca Kanam soxna yi Touba Ca Kanam jox saa yi ko xool da nga xam loolu kon soxna yi sunu xol seet na bu ñu si yéen ñu nee na xolam seet na ci yéen yaakaaram doole ko na xelam dal la kon soxna bi yaa soxna yi topp si ginnaaw yëpp na ngeen xam ne dalal ngeen xelum Cheikh Mamadou Mountakha dalal ngeen xelum boo leen di wër Sëñ Tuubaa dalal ngeen xelum yoonu mooy dalal ngeen ndax jigéen mës a des gannaaw lislaam te seen jotaay bii teg kon sant nañ jant boo xam ne aw laa ñu lool lañ du mën a ñàkk nag ñu tudd ci ñi nga xam ne ñoo fee ne daaw te doon taxaw bis soxna yooyu ay jàmbaaw lañ ay kilifa lañ ay doole yu tële waaye nag ñu fàttaliku ñaari soxna yoo xam ne dañoo génn àddina ci biir waajtaay yi kuy wax soxna wax soxna ñoom ñaar dañoo génn rek nit ñi waajtaay yi te fekkoon ñu am ci te bësee ñu ngi leen di fàttali bu dee wax xool lépp ñu ñaanal leen soxna ay bi jéem soxna bi kenn ku ne leen jàngal bu gën a place ak kenn ñaanal leen ko fañ nekk ñëpp nga des door ak njëgal man dem na ko def ci biir waxtaan yi ak jotaay dañ ko bëgg a def waaye dañ leen ko defal dal fàttali ko leen ci bis bi bañ xam ne fàttaliwuñ leen ci fañ nekk ndax waaye doon nañ ak suñ bokk yi leen jiitu woon wàccoon ci liggéey bi ak boole ak julli ak taalibe Sëñ Tuubaa waaye ñu ngi sant waa Ndakaaru yi nga xam ne biñ tàmbalee bis bi ba tey ñoom ñoo taxaw di ko taxaw xëy na sant Tuubaa ca kanam Tuubaa ca kanam santaat ko du du yow gudd te buñ santee waa waa man fi nekk Ndakaaru day mel ne Tuubaa ca kanam mooy santaat ko kon mën nañ koo gàttal waaye nag jaajëfal bu jëf dafa mën di ñàkk faaw ñoom ñu ne woon ni tool bi di ci jëf di ci sonn faaw ñu jaajëfal kon loolu la ñu war a ñu leen di jaajëfal tàmbalee ko moo soo bi nga xam ne moo doon coordonnateur bi ak soxna Amadou Diouf bi nga xam ne ñoo coordonnateur bi ak soxna ak suñu ak jaam sëñ ma ñaay moom ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant bu baax ñoom ñëpp ay jàmbaar. ñu wax leen la nga yor ak ci koy gi rek waaye ni woon teg gi bokku jullit yi bokku tele yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi Serigne Touba tey ci kaw suuf di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak ñun suñu borom ko sàmm ba naaj yi ci liggéey Serigne Touba suñu borom may ko lépp moo tax ñu ko mu yóbbante ba kàddu yi cant ak i gërëm jëme ko ci waa daayira nuuru daayira Touba ca kanam ci njiital sëriñ Abdou Mbacke mu Cheikh Mamadou Fag ak sëriñ Abdou Lahad Mbacke mu sëriñ Abdou ñu topp ci moom ak seen jëwriñ Abdoul Fatah Gaye ak boolem ci bokk ñëpp ba ci sëriñ Abdou Mbacké moom Serigne Dame Mbacké bu ma seen i kilifa ñëpp tàbb nañ ci tax mu ne su leen bi ñu ngi nuyu Cheikh Mouhamadou Xaban Mbacké moom mi xam ne mooy kilifa jataay bi Serigne Touba ni mu tëralee yoon wi mooy képp ku la jiite rek mooy sa kilifa Serigne Abdou Lahad Mbacké wax ne sa kilifa loo ca fekk rek loolu ay sa kon ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm di ko siyaare bu baax ak boo dem bokk taalibe yi fi yëpp di sant ñëpp nag di gërëm ci turu Serigne bi. du nuyu suñu bokki jigéen ñi nga xam ne ñoo fi teew ñoo am mubaatar bis bi te buñ ci tuddee soxna bintum sëriñ Abiw soxna bintum sëriñ Abiw ak mu mën a yóbbaale ñi fi teew ñëpp kon ci turu sëriñ ñi ngi nuyu mbokku taalibe bi yëpp di leen sant di leen gërëm ci li weesu lépp di leen soñ ci li càkka te xam ne li am solo rek mooy liggéey Sëriñ Tuubaa ndax wa maa xalaqtu jinna wal insa illa ñu jàmm liggéey Sëriñ rek ci jàmm yàlla ndax mooy xidma te loolu alxuraan tudd fu bare bare yéen nag di waa Touba ca kanam seen mandarga mi gën a rëy mooy ah. jaayante dëddu lépp liggéey Serigne Touba kon ñi ngi sant Serigne ak ñun Cheikh Mamadou Fadil ndax ni ko Serigne Abdoul Ahad Mbacké waxee moo waree na teewaay gàtt ak gàllankoor moo tax waaye fu Serigne Abdoul Ahad teew war na ko fa teew man mii itam fu ma teew rek mën naa ko fàtteel fu mu teew mën naa ko fàtteel ci ñaari fan yëpp xam ngeen ni mu jëru del si waat kon ñu ngi koy sant moom itam di ko gërëm di ko ñaanal ci barke Serigne Touba ni ma ko daa seet bëgg-bëggam ak yitteem lépp génn liggéey Serigne Touba yàlla na ko ci suñu moom dimbali Serigne Touba kat la ko ji ba mu àgg ci fa mu sant bu baax di ko gërëm li laa xam ci moom mooy yitte pëstéef ak doog bëgg Sëriñ Tuubaa moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla dimbali ko ba moom itam ni mu ànd ak Sëriñ Abibu da Sëriñ Abdul Ahad Mbàkke daa wax ci dëgg mu seen xarit ko ëllëg leen kon yàlla yàlla dëgëral seen ànd bii yéen waa daayira bi yëpp ndax ba ngeen sosoo yëpp ci mujj Cheikh Sidi Muxtaar ngeen laaj ko ndigal mu jox leen ko ngeen tàmbali ko waaye at mu jot muy gën a yokk di gën a yaatu Serigne Saliou Mbacke nag daa wax lépp loo yëkkati boo ko xoolee taalibe yi nangoo rek xamal ne Serigne Touba nangoo ko kon nag yéen na seen xel dal te seen jot rafet te ngeen gëm ne liggéey bii Serigne Touba nangoo ko la ci des nag mooy li kullin ila chatwil jug jëm ci lu baax yomb na waaye li jafe nag ba sax kon nag yàlla na yàlla dimbali ba li leen Cheikh Mawalou Moutakha doon wax bu yëngu na leen ngeen àgg fi ngeen jëm te dara bu leen bu leen dara doon dégg moo fi nekk moom fi nekk si tubaab nag yéene na leen ñaanal leen ba la seen xel bu baax a baax waaye ngeen gën a ndax cant yeeg gërëm yi leen sëriñ bi di wax yëpp ndax Cheikh Mawalou Moutakha xam ngeen ne Touba ca kanam. mbiram ab liggéeyam ab daayira ci ndigal bi tam ngeen jox ndax lu leen sant ngeen def ko te mosu leen a teral ngeen di bàyyi ndax ni ma leen ko daa seere yi fi jaar bari na ndax adduna yi fëkkaati def bari ndax saa soo jugee jëm ci lu baax rek boo doxee tuuti rek saytaane ngeen ko indi shawala lahu shaytaan di jaxase xarit yàq. wala mu dugg ci biir loo xam ne bokku ci woon waaye yéen mel na ne Serigne Touba ngeen ci dimbali ndax ba ngeen di tàmbali daayira bi di ko sos tàmbali waxoon di fi jub dem ba kawe ba ci ak gàllankoor am ca yaa rek ko yàq adduna dugg ci wala mbirum adduna dugg ci mbirum adduna mooy politique kon loolu yàlla dimbali leen ci ndax li fi romb bu bari na ci juróomi at waaye kenn mosu leen dégg tàmbalee ci Serigne Touba yow ci Serigne Touba loolu nag na ngeen xam ne mooy seen jillaay mooy seen kaaraange ndax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daan wax ne Serigne Touba bi fecc li sax kon seen dayri bi ni mu sosoo ba agsi fii bu leen ko xeeb rëy na ndax dayri bu sosoo mot ëpp gu juróom ak di dajale ay milliards loolu kenn mosu ko dégg fenn kon. bu leen ak yàkkamti dugg bu leen adduna juumloo yàlla dañ ci dimbale rek di tax sama xel la ci rek mooy ñeneen ci seen kanam kon jëwriñ ji jëwriñ rek mooy dam solo ci ab tool Cheikh Issa Dieng daal wax ne jëwriñ bu bu jiitoo bu doxee rek lépp dox kon nag na seen xel ndax jëwriñ yi yi ngeen topp seen gannaaw ñu ngi dox ndax Serigne Abdoulaye Mbacke am na lu mu ci biir yoon ba mu koy leeral ñi ko xamul dana leen da ci am ñoo xam ne dañuy doxe doxe lu gaynde am ci ñuy doxe doxe bukki mu ne gaynde nag bu toppee ci ginnaaw bukki bu yàggee aw doxin bi yéex kon kuy topp na ngay xool bu baax baax ci yoon bii nga xam ne sóobu ngeen ci te Sëñ rek tax ndax seytaane kat Sëñ Tuubaa daana ko dafa làng fu mu jugee rek muy dugg jug ngir bu ko gàllankoor du ko mën ndax ay yashal minillah inda jeewali iblisa isnaadi turbiyawa fu mu ko jógee rek waaye nag seytaan Sëriñ Tuubaa waxul seytaan shayatin la wa kazaalika ja'alnaa li kulli nabiyyin aduwwan shayaatina al-insi wal jinni yuuhaa ba'duhum kon da ngay dégg man xatat xatat xatat seetaan am na fu mu koy wax kon ay seetaan yu bëri la kon seetaan yi bu dee rek am na yenn yu judduwaat kon nag li am solo rek mooy dëgmal Serigne Touba ngir xam ne Serigne bu doxul dara moo ko garanti ndax la mu waxoon ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahaafizuun mbirum Serigne Touba yi yoon wi noonu la demee Serigne Touba noppi na ci moo ko garanti moo ko fàgg moo ko aar bu ngeen déggee nag may bàyyi ñoo fi ngeen jëm da ngeen jëm fu sori te fa ngeen jëm gëm naa dara mun leen fàtte dara mun leen fàtte ak naka jekk nag àdduna noonu la baax aay bi suñ doom ji tedd ji doon jàngale ñi sëriñ sëriñ Abou sëriñ Bassirou Cheikh Mamadou Fadi وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق laa ta'lamuhum na'lamu nahluhum loolu mos fa jóg waaye mënut a yàq nag ndax mission bi da ko tax a jóg dara mënu ko te àgg te seen mission bii li ma dégg Cheikh Mouhamadou Mountakha seere ko ci biir seere ko ci biti dara mënu ko gàllankoor dana àgg fa fu mu jëm te dara ko gàllankoor waaye nag cant gi li muy rëy rëy def leen ko laxasaay ngeen xam ne yoon bi kenn wàcc. ak Cheikh Ibrahima Fatick saa su ko Serigne Touba masaan wàcc ci bëgg a ci liggéey bi mu ne ko Mbàkke yaa ma njëkk a xëy fuuf ci liggéey rasulullahi sallallahu ba kon li ci mu wàcc kon na ngeen xam ne bu jeex rek gaa saa toppaat te ngeen xam ne liggéey Serigne Touba mooy li am solo ci àdduna mooy li am solo ci àllaaxira ndax ni ma koy faral di fàttali Serigne Mbàkke Moussa daal di wax ne yéem a umpale ñaar bokku ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ci saw ñàkk dana joxe barke jox ko sa alal daal doon wërsëg kon na ngeen xam ne lii ngeen di jox Sëñ Tuubaa mooy seen ñaar téeméer yi ndégalu Sëñ Tuubaa waaye la suñu ci defal bu baax nga waxoon rek misaal boobu ngeen doxee seen seen Abdoulaye Mbacke dafa waxoon ne boo yoree kooku ndox te bëgg a sang bëgg a jàpp bëgg a duy da ngay fekk borom géej nga jël sa kooku ndox la sotti ci biir kenn mënatu kenn mënatu bi caa kon seen ñaata yi li ngeen di indi dugal ci liggéey bi na xam ne mën naa am tuyaabay ku am ku joxe milliard.